yéen waa AG jot na lu leen tax a jógee benn yeew yi parce que en tout cas mbooloo moo gis mhm. benn particule bu génnee day gën a fragile mhm. tey boo leen nekkoon yeew yi mhm. imaginez peut-être combat bi téye nañ maître Moussa Diop mais yeew yi dina ko porter en aucun cas dina ko dina ko porter mais génn ngeen yeew yi da ngeen di gën a fragiliser seen bopp parce que yeew yi de mu ngi mu ngi existe ba léegi yeew yi askan wi ba léegi mu ngi existe quoi qu'on puisse dire yi mu ngi fi xam nga foofu monsieur Camara li ma naan j'ai la réponse à la bouche. yàkkamti ko woon tontu sax nag parce que dafay baax ñuy xamal ñi xamul parce que loolu moo ñu fi tax a taxaw comme li nga wax léegi daf fi nga daanelee je me dis que vous avez fait une et pertinente même que politicien bi buy ñëw ne dafay dimbali askan wi te askan wi ci askan wi la bokk kon kooku euh, damay saluer son courage d'abord nga ñëw porter volontaire na yow di nga dimbali ñi nga xam ne dañu sonn kon déjà c'est pas n'importe qui moo koy def tey boo ñëwee ne euh, politiciens yi dañuy frustré parce que joxuñu leen poste moi je vous fais un petit rappel que nous on n'a pas un problème de rang mm-hmm. pour être au premier gis nga en il faut pas oublier que le président Maître Moussa Diop dafa ñëwoon pour déposer sa candidature il avait commencé même à faire campagne ba pare toog ci télé di wax ses programmes c'est lors de l'invitation de Mamadou Ibra Kane si je peux me permettre de le citer toog di wax ay point di wax ay di wax ay euh, kiiwam euh, di wax ses projet ci la ko le président Macky Sall xool seetaan ko ni kii on dirait que man ak moom bu ma amee 10 points moom mu am 7 points on a des points en commun kon kooku amul problème mu naa jiitu naa def na le moo xam man problème la am joxal nit ki li mu yelloo quand le président Macky Sall a fait appel à lui mais il a été très rationnel et très compréhensif le président Moussa dafa ni sénégalais xamaguñ ma bu baax donte yàgg na ci langue politique gi nag. avant loolu avant 2012. avant 2012. ah oui Moussa Diop ci Ousmane Ngom la nekkoon ñoom ñoo doon jàppale Abdoulaye Wade au temps moo tax man la gis nga nit ki soo ko bëggee xam. da ngay Ousmane Ngom Ousmane Ngom ban année. ban année euh, parce que parce que parce que 2000 en 2000. Mhm. alternance bi njëkk am Sénégal. Mhm. bu ñu fàtte ni Ousmane Ngom Abdou Diouf la doon jàppale. Ousmane Ngom Abdou Diouf la doon jàppale boobu génn PDS ba créé xaw PLP xaw ban parti la créé waaye léegi ñuy génn nag te nga xamante ni Ousmane Ngom il est sorti sans l'aval de personne informé kenn xëy rek ne moom parti bi moom la dem Moussa Diop ak fulla gi nga xam ne moom la wane tey ak transparence bi ci la génn claquer les portes dem yoonam kon kooku c'est pas un problème de rang donc si je termine en 2012 Macky Sall appel à lui pour ñu àndandoo fii mu toog chaise bi moom laa bëgg a toog mais tey prérogative yi mu am ak tey jii CV bi nga xam ne am na ko tey politiquement au Sénégal su ma toogee mu toog muy xëcc fële te on avait qu'un seul objectif c'est de faire descendre le président Abdoulaye Wade mu jël jox ko ñu àndandoo liggéey mu battre campagne nag loo xam ne sénégal yëpp ak tëg bët le président Macky Sall l'a salué de partout kon kooku il n'a pas un problème de nekk naa ci kanam nekkuma ci ginnaaw c'est pas son problème hmm. benn objectif la am mooy que ni Sénégal na tegu ci yoon. comme ni ko nit ñi xamee mu nekk nitu dëgg. donc si je reviens sur le problème de Yewwi Askan Wi comme vous dites <laughs> mais Yewwi Askan Wi kese nekk fi comme plateforme boo xamante ni c'est pour l'opposition. ñun bi ñuy dugg Yewwi Askan Wi comme je dis tout le temps on n'a jamais été demandeur. c'est Ousmane Sonko qui a fait appel à Moussa Diop. xëcc ko ci loxoom ba mu ñëw. Moussa Diop xam ne liñ naan lu kenn mën ñaara ko ko dàq. xeex nañu fële mook Macky Sall ba ñu wàcc Ablaye Wade. gàcce ngalaama kon tey bu ñu bëggee xeex tey ji injustice bi am ci dëkk bi day ànd ak waa Yewwi Askan Wi ci la ko Ousmane Sonko woowee mu ñëw. Mm. loolu je pense que yéen journaux yéen ko relaté waat ñëpp di ko gis. bi mu ñëwee aussi il a battu campagne ba nga xamante ni ñun suñu parti ànd gor yi on a des conseillers municipaux am nañ ci ñoo xamante ne tey jii dañu baatal campagne ba nga xam ne tey képp kuy kilifa Yewwi Askan Wi sax da leen doon tàccu. Mm. Moussa Diop jël ay propres moyens nag def ko ci. ba yàlla may ñu ndam donc bu ñu nee ba génn Yewwi Askan Wi du problème dugal nañ ko parce que tey jii bu ñu nee ba am ci ay conseils municipaux kon alhamdulilah <laughs> loolu ça fait partie vraiment ci parcours boo xamante ni san un parcours très riche. mais génn xam nga lan moo tax ñu génn xam moo tax ñu génn. li tax ñu génn mooy que nii bi ñuy dem ci élection kii. local bi ñuy dem ci élection non élection législative yi. kon local. diggante après local ngeen génn yéen. après local la ñu génn parce que après foofu la ñu amee suñu ay conseil bi ñu dem ci élection yi euh, yi nga xam ne ñu waroon tabb ay député législative législative yi. waaw Moussa Diop dafa defal listam comme li nga xam ne moom la moom la charte yi permettre à tous les leaders <laughs> yi nekkoon ci yeewu askan bi mais à notre grande surprise list yëpp dafa dugg. ba mu des suñu bos. ah maanaam jëluñu ci liste yi. suñuy liste lañ jël teg ko fee kan moo ko def ku dul Khalifa Sall. Ah. te loolu ñu doon kaas ñun bañ wax. waaw musaa jóob dafa mën a kaas mais tey dëgg lañu askan wi jox parce que c'est ce qu'il a fait la même chose avec eux kon tey li Moussa Diop doon jooy ci yeewi askan wi moo am ci ñi mu doon joom joxoñ baaraamu tuuma tey ci boppam waxuma la waa yeewi askan wi kese mais képp kuy sénégalais tey dem nga ba xam ne la Moussa Diop doon jooy ci tey jii diw mii looloo am kon ñun amuñu problème opposition Moussa Diop tey yow boo ñëwoon di présenter élection mu xam ne yow yaa gën a capable pour ko dala koy jox moom lenn ko ñor muy justice ci dëkk bi une justice équitable ba pare ndool gi nekk ci dëkk bi mu wàññi ko parce que sonn nañ donte bu dee buñ nee mënuñu defar lépp. d'accord tey bu taxawee di waxu day laaj réew mi dafa def ay preuve am sur l'emploi des jeunes l'emploi des jeunes Moussa Diop 1750 CDI la jël CDI laa la wax Dakar dem dikk te jëlu ko par parti politique. loolu moom lañ ko gërëmee président Macky Sall moom mi ko tabboon ci Dakar dem. waaw mais xam nga Macky tam foofu da ngay jóg Macky ko muy nelaw mu tabb ko dafa xam ses compétences am yaakaar ci moom. te c'est ak Macky Sall qui avait la plume pour pour pour euh, pour euh, euh, jël ay nit jël ay jeunes c'est pas Macky Sall qui avait les initiatives à la tête de Dakar Dem Dikk kon loolu aussi bu ñu nee ba nga xamante ni dañ ko koy nangul saluer ko parce que comme li nga wax léegi langue politique ku ci nekk bu ñu la nangulee li nga doon accompagner la ci li nga doon donte nag lépp mënul parfait dinañ xam kan moo mën ak kan ak kan mooy kii ak kii